jaajëf sama gars yi jaajëf sama gars yi dégg Mister Shake Mister Shake depuis les États-Unis d'Amérique côte ouest lay doon côte ouest lay doon xaar gars yi dugg benn par benn waxtaan defal leen benn laaj bu gàtt rek ñu wax ci eh, Sénégal marche bi war a am suba incha allah Macky Sall interdirul marche bu dugg dafay laaj kaay bu dugg dafay laaj sa chèque la depuis les États-Unis daf nekk ba yi di jot jot na koy dugg dafay laaj gars yi da ngeen di comme ça ñu wax ci suba luy xew. wax ci leen mooy xew le 15 wax ci lan mooy xew le 16 est-ce koy jàpp est Sénégal dafay tàkk est-ce que koy atte le 16 euh, euh, euh, Mame Mbaye Niang say gën na àdduna yàlla te yàlla yërëm lan moo tax Mame Mbaye Niang

mais bo gisé ah mën na am bu ñu démé tribunal bu nit ñi bëree bu nit ñi bëree Sénégal yépp génn suba suba nek succès loolu dina tiital Macky Sall ba mercredi un ñu waree dem ci procès bi ñoom ñoom seen nous ñoom naan nañ ko dàq juge nañ ko parce que sama avocat maître Seye dafa génn àdduna comprendre bu muusoon loolu lañuy def mais ñëpp xam nañ ne Macky Sall sama gars yi ñëpp xam ne Macky Sall nit la koo xam ne euh, dafa euh, euh, dafa yàkkamti dafa dëgër bopp te maître Seye bi gaañu normalement ñoom bu ko joxoon cër bu ñu ko joxoon cër te affaire Sonko bi dañ koy jël ñu teg ko si suuf waaw. léegi suba live bi live bi lan la lan lay da fay wone ni suba parce que ñu ma ngi déglu Mati 3 pom Mati 3 pom la sétane muy ñuy tëkku muy xas Sonko comprendre nga di ñaawal Sonko di wax ay wax ñaawa ñaawa ñaaw ci Sonko moy moy soxna Mati 3 pom su ma ko mënon tegal sax da nga leen koy tegal ngeen déggal ko sen bop wax yu ñaaw yu yu Mati trois pommes di wax. Euh, Biram Faye parce que dégg leen nee na dégg nga dégg nga dañoo teg dégg nga dégg nga Sonko lay xas ni waaw dégg nga mooy jour ñuy jàpp Sonko waaw dégg nga dégg nga lu raw càq-càq lañ koy def dégg ngeen dégg nga euh, euh, dañuy jàpp Sonko dañuy jàpp Sonko le 16 sama chiffre bango 44 gars yi laaj leen partagé que parler. que parler ce avec son son ses c'est qui d'ailleurs là vraiment. David donc nous nous encore. nous Nous, sax y a des hommes d'État. analyse. parce que le 15 j'ai l'impression qu'ils se sont démarqués.

dégg voilà gars yi partagé leen après dañuy def analyse waaw dégg nga waaw avancé waaw déglu leen nee na Sonko li mu bëgg déglu leen. moom mooy le 14 et le 15. le 14 et le 15. surtout le 14 na mobilisé. waaw dégg nga. jël ay nit yooyu jëlee leen ca kaw ba fu ne. ruqu ruqu ñu jëlee leen ak seen i kaar indi leen. dégg nga waaw. su ko defee. won l'opinion ni waaw on s'est waaw les gens sont toujours derrière rek. jour jour raaj bi. jour raaj bi jour mbëkkante bi. mbëkkante nga xam ne dañoo découragé la waaw dinañ ah, laaj leen partagé leen mhm. ñu fii déglu leen fii.

la état bi lay lay lay sukk di leen ñaan. dégg ngeen ngir yàlla bu leen naagu. dégg ngeen li ma trop ma góob di ngeen naagu. sukk di ñaan bu leen bàyyi lu mel ne profital ay na prof ndóol. bu leen ko ko mayee rek da ciy suuf lu ndaw victoire bu ndaw a ndaw a ndaw. bu amee bu ndaw. waaw ndaw c'est-à-dire que euh, force de défense et sécurité mun ngeen toute la journée ngeen ngeen def sans faute. waaw wala 90 pour cent vous avez assuré. kay laaj la leen tamit 5 pour cent bu ko amee da koy gàttal. Mhm. ñu di ko wàllu fee. dégg moom mooy moom mooy dégg.

waaw fu mu nekk nii kenn déglootu leen. kenn déglootu leen nee seen i laay ba kenn déglootu leen kenn la jëndeetu leen. ah yaa ngi rayante ci seen biir sax ñoom. waxoo dëgg de. te gis naa ko euh, Akhenaton ma ngay raag ak MC Niass. déedéet ñoo xam nañu rayante bu bu ñu deret laal. déedéet. nañu rayante bu ñu deret laal. kay déglu leen rek. gis ngeen ni ba ci biir ñi koy défendre et tout. tension bi dafa wàcc bu baax. wàccul de tension bi wàccul de parce que nekkul perte de vitesse. Sonko ci boppam est en perte de vitesse. waxoo dëgg de lan moo ko waral.

dara yu mu toog moom biir moom Ousmane Sonko. waaw yëg ni euh, euh, euh, Mame Mbaye mi ngi war def de presse. ay ay mi ngi ci TikTok bi di jooyoo dugg fi génn fi. mu ne bu génnee. waaw gars yi dinañ mel. waaw su ko defee gars yi gars yi génn ak moom. waaw mu am li mu bëgg daal am seconde vague. deuxième vague bu 21 mars. waaw mbir mu amut. deuxième vague en parenthèse seen jooyoo yal na ko yal na yem ci yéen. leen seen jooy yal na yem ci yéen. gars yi laaj leen partagé leen internet. dégg nga ni ñuy saboté. gis nga ni ñuy saboté waaw. waaw yéen waa Pastef na leen topp ak seen i jooy. <laughs> gàtt nga leen bu baax Mati elle me fait rire quoi man waaw. donc il pensait que en sortant de nouveau. waaw. Euh, gars yi di ko live. waaw te nit ñi dinañ ko fekk si. nit ñi dañ étudiants yi gars yi kenn génnul. kenn génnul nee na kenn génnul. waaw alkaati yi fàttu fépp. alkaati yi fàttu fépp. ça ça a été un déclic. nee na déclic seen panel yi. waaw seen groupe whatsapp yi. déclic gars yi découragé. découragé. seen groupe whatsapp yi gars yi ci bëri lan lañ doon wax euh, euh, Ousmane Sonko ne s'est pas battu en fait. waaw dëgg la il s'est pas battu il s'est livré aux forces de défense et de sécurité. waaw c'est-à-dire il s'est pas battu. dëgg la c'est-à-dire waa ji tapet la. tapet la da ngeen bëggoon mu xeex ngeen dóor ko bal. donc innocent yi nga xamante ne ñu ngi biir Pastef. waaw waaw gars yi tout le temps yéen ñoo ko di. waaw bu ngeen téye Sonko dëkk bi tàkk. bu mu bëri matériel bi la Macky Sall bu defee troisième mandat dëkk bi tàkk. waaw bëri commencé woon nañ ko gëm. lii démbale woon waaw. force de défense et de sécurité li ngeen sauver Sénégal yéen est-ce que xam ngeen ko sax. sauver Sénégal waaw. su boobu vous avez créé benn déclic bu grave. déclic encore Sonko dana jekk woon. les les neutraliser seytaane. encore Sonko dana jekk woon wala wala wala wala ay. déclic seetloo plateau yi. waaw waxatuñu ay bu ngeen ko jàppee dëkk bi tàkk. loolu la ñuy wax de loolu la ñuy wax ba léegi de. procès Mame Mbaye Niang bi jël ko woor Mame Diarra Fam maa ngi ci ñun. Sénégal benn la xanaa tey ngeen xam ne Sénégal benn lañu. Mame Diarra Fam bokkul ci ñun. PDS la tey ngeen xam ne waaw ñooñu màkk la ñuy liggéeyal. xam ngeen le bluff ne marche plus. bluff. parce que xam ngeen ne l'état. waaw li président Macky Sall waxoon. waaw la woon woon na. la woon woon ni le 16 février defu leen dara jàpp leen Sonko de. <laughs> seen de vitesse lu ah, kon mi ngi woon ci vitesse. ma jox leen benn vidéo. waaw parce que lii la ñu xaar ci jeunes yi. waaw déglu leen gars ñu. ay ñoom Lat Diop ay booyu Lat Diop ci génn di tëkku Ousmane Sonko déglu leen déglu ma ci trois pommes ma trois pommes seytaane bëgg taal Sénégal.

waaw waaw waaw ñu ngi lay déglu rek. ma jox leen xool leen vidéo Lat Diop fay ay booy. géejawaay booy di sóob ne dañuy raak euh, euh, après gars yi ñu continuer continuer waxtaan bi dégg nga nee na mobiliser vous force de de sécurité. vous avez ay waay jëlee. ಬಾ ಬಾ ನಿನ್ನ ಜಪ್ ನಿನ್ನ ಜಮ್ rek nañ dem rek xool leen booy booy géejawaay booy booy ñàkk jom ñoo xam ne dañ leen di fay ay dix mille vingt cinq mille ñu génn déglu dégg dégg dégg nga waaw dégg nga dañuy toj sa gan voilà waaw gars yi waaw léegi xaar ma dégg nga nee na chaque nee na chaque quartier nañu mobiliser waaw dégg nga dégg Sénégal Sénégal.

dégg nga. na tàkk na tàkk jëppee jëppee. ñun su ko ñoo am information yi. jëppee dafa tiit. l' état du Sénégal Maty 3 Pommes dafa tiit. may ñaan nag. waaw na étudiants yu bëri. waaw ñu bëri ñu ngi dëkk Dakar mais ñu bëri ñu ngi dëkk ci région yi. Uh-huh. sensibiliser leen les parents. dégg nga waaw dafa tiit tey ku ci dee. dafa tiit dafa tiit. nga investir fexe ba sa doom dem ba am bac. waaw investir. Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko mu nar a mu nar a dee. bac Sénégal mu nar a naxasaay. Sénégal waaw kuñ ci dëkk avenir ku compromettre sa avenir ndax avenir Sénégal ban avenir moo fa am demande aux jeunes de se battre à sa place ay waay jëlee Sonko Sonko investir seen xaalis ci seen i doom investir seen i doom yaakaar Sénégal ngeen nar a bàyyi seen i doom seen avenir sànku avenir fan ak Macky Sall ay waay Macky trois pour mooy naa fekk waay sama chiffre baa ngoog cent quarante quatre gars yi laaj leen dégg ngeen non kii foog ñu déglu ko dama bëgg ñu conscientiser suñu parents yi. nga dafa fu mu nekk waa après dañoo jeex na ba pare. jeex na le bi fi eh, tere nelaw ñu ñu lekk. i ki soxor naa mati trop trop. i mais yi. waaw wala say dégg nga. i i i i nañu jugé waa ji. sama ndey mi ma ci trois pour moo soxor. lii yëpp jot na kaa wax. waaw. ah nit ah nit ñi yëg nañ ko. kon kon dañoo ji. étudiants yi ne bu ñu ci duggee moom yëf yi neex. nee nee police eh soxna seen bakkan yóbbu mi ngi len di menacer toog jàpp seen jàmbur te baye ki mu dem uyu ji mambay nya mambay nya Mbaye Niang Ousmane Sonko mambay nya Niang lu mën a gën a nekk góor da fenal mu ne la nga jëw nga ne bu teg ay waay waay waay petit trapo ma neex lu fi jar wote xex eh. lu fi jar wote xex eh. ah léegi mi ngi kii de mi ngi calmer lu fi jar woote xuloo mi ngi calmer de léegi kon na gay voilà continuer voilà gars yi merci tegal naa leen matti ñetti pom gis ngeen ko soxna matti ñetti pom tegal naa leen ko euh, dégg ngeen li mu wax dégg ngeen mati mati ñetti pom lu mu wax mati ñetti pom mati ñetti pom nee na cooki fin nañu atte waa ji mu jeex senegal nekk ci jàmm yi ñetti pom mati ñetti pom nee na euh, booy géejuwaay nañu génn ñu raak mati ñet pom nee étudiant yi ku ci génn di xeex bu la ré yaay perte mati ñet pom lan la waxati mati ñet pom nee Sonko dañ ko japp dañ ko ci xat ci am amna ben terme sax bu mu utiliser ben terme bu mu utiliser nee Sonko il est en perte de vitesse nee na nag cooki fin la euh, euh nu mu tuddati le 16 mars kon Maté Trois Pommes moom ci ci milieu bi la nekk xam na am ay information kon Macky Sall dafa jël décision le 16 mars bii boo leen génnul yéen patriotes yi boo leen génnul Macky Sall dafa jël décision mu acté son mu condamné ko da ko ndara condamné Macky Sall du dàq bu fekkee ne affaire bi am na man gëm naa juge bi ah je baro bi xeex ak moom euh, le le bâtonnier de l'ordre des avocats mu xeex ak moom xanaa nu mu tuddati nu mu tuddati le bâtonnier xeex ak moom ak kan avocat Sonko yu bees xeex ak moom mais bu dul loolu bu dul loolu moom dëkk bi dina takk jëppeet parce que Macky Sall dafay def forcing mu acte Sonko dafay def forcing mu acte Sonko léegi man li may wax rek mooy gars yi ñoo war a mobiliser wu euh, euh, euh, suba nag gisuma fenn fu ñu foo xam ne dañoo interdire giga meeting bi gars yi wax leen ma est-ce que giga meeting bi dina am wala du am man li ma gis gisuma fenn ñu bind ñu ne préfet bi dafa interdire giga meeting bi kon giga meeting bi dina am kon Macky li ma bëgg mooy mu permettre giga meeting bi am waaye le 15 Sonko dafa ne Sénégal yëpp na ngeen manifester raag bi da ngeen ma ci droit wax لا 15 درهم اك لا 16 ما نسوقش صح لك لا 16 ما نقوم ما صح ما نقوم ما صحنا ااا آه ااا آه، قوم ما صحنا لا 16 ااا آه، نوم ترجي دينا ام ااا آه، دينا ام ااا كي نينا داي ام ااا واو كون كون مارش بداي ام مارش بداي ام ما نقوم ما صحنا لا 16 ااا خاخ دينا ام كي نينا سون كوريك 2024 ميم اللي ما يوحرك موي سوبر سوبر gëm naa ne dina fees dell ak nit mais nag suba bu nit ñi ñëwee comme Macky dafa bañ interdire parce que Macky Sall bi fu muus il est très malin bu interdire suba Dakar day takk jëppeet suba Macky bu ko interdire Dakar day takk jëppeet kon Macky fu mu nekk li mu def day perte bu interdire nit ñi dinañu génn par force parce que nit ñi dañuy mer génn xam nga te boobu boobaa ko ci dëggam lay nekk ñoom Khalifa Sall ñoom ñëppay génn xam nga du doon makki contre Sonko rek day doon makki contre Khalifa Sall makki contre you makki ñeppay a génn mais le 15 ñoom Khalifa Sall du ñu génn moo tax Macky bëgg bàyyi bëgg autoriser le 15. waaw dinaa wax ci Mame Mbaye Niang dafa daw dafa laqatu kenn déggatu ko am na lu ñuy préparé boo déggee boo gisee mag euh, euh, kenn déggatul ma Mame Mbaye Niang ça veut dire que am na lu ñuy préparé mais avant may ñëw ci Mame Mbaye Niang bàyyi leen ma eggali li ma bëgg wax fii mooy suba.

mais ñoom dañu def comme ay xale quoi man gis nga waa affaire billahi wallahi taalahi dama leen ne jéppi jéppi jéppi jéppi parce que dafa am yoo xam ne boo gis nga nit ma troppam nee na soo Sonko tapet la mais waa affaire ci boppam ñoom ñooy tapet gis nga nit da ngay dëggal sa bopp Macky Sall nee na lam tooro la xaw ma xaw ma lan tooro do la lam tooro la gérée la patati patata mais bu fekkee ne gérée nga boo jëlee sa décision da nga koy assumer mais préfet bi tout jël décision bo xamné yow euh, euh, nit mu Mbàkke nga interdire ko pour Sonko gars yi xeex duma la duma len ñepp mer wa Touba mer hein parce que euh, ñi àndal ak Sonko té bokk ci famille religieuse bi mer parce que Sonko dafa dafa wane lu bees moy né man kenn dootuma téré kenn dootuma téré euh marche légui préfet bi demb ñu né dafa am ben euh meeting APR bu préfet Mbacké daal di interdire pour léegi dañu bëgg gëmloo mais préfet boobu vraiment c' est un préfet démocrate démocrate quoi parce que gis ngeen mi ngi nii sax léegi interdire na seen seen gis nga seen machination yi ñuy def c' est révoltant gis nga Macky Sall billaahi wallaahi taala li muy def c' est révoltant yëfu tàppe dëgg dëgg dëgg lay def gis nga góor da ngay nekk góor gis nga booy nekk dictateur da ngay nekk dictateur comme yaay jàmme comme yow nee nga da ngaa bëgg nekk dictateur da ngaa bëgg rey ay nit mais da ngay dëggal sa bopp mais di jël ay Amady Diouf procureur di ko teg première xaw ma lan cour d'appel xaw ma di jël ay Ali Siré di ko teg cour suprême mel na ñun ay élèves CM2 Macky Sall dafa mel ne waa Sénégal ay élèves CM2 la mais ay décisions yoo xam ne si c'est tellement ridicule mel na Sénégal ay ngaaka moo fa nekk yow. da ngay toog sa sa sa sa bureau di def coppet coppet kii laa jël teg fii kii laa jël teg fii comme ça élection yi ah Ba mooy bi baajo Camara ma jël ko teg fii mais Macky Sall dafa ñoo yab billahi wallahi taalahi dafa yabaate te bu yaakaare Macky Sall bu yaakaare ne euh, calcul yi muy def mais loolu jeex na loolu jeex na c'est vrai que loolu la loolu lañ ko tàmmal ñu ñoo ko tàmmal depuis ba mu nekkee 2012 ba léegi bu bëggee def référendum def référendum bu bëggee dàq mi Mimi Touré mu dàq Mimi Touré lu ko neex muy def mais loolu dafa jeex li muy def c'est tellement élémentaire ba pare préfet bi ñëw di ñu gëmloo ne dafa interdire benn marche léegi pour ma terminer li ma doon wax suba defet la ndara doon ci Macky sàll bu ko teree defet bu metti ndax gars yi dañuy génn def ko Mbacké te xam nga Dakar bu ñu defee ko Mbacké day metti parce que bu boobaa géejewaay dina takk parce que dina takk ñëpp dina takk te bi yëpp day branché suñu seen caméra yi Dakar té bu boba américain buñu ñu lan mo xew Sénégal dañ né ah ñi dé dañ né dañuy marche ñu né la do leen fi marche parce que dañuy tabax fi ak dañuy tabax fële xol leen place de l'obélix ñu ko def kenn mënatu fa marche mais des gis nga c'est tellement ridicule Macky Sall limi def c'est tellement ridicule yow bo joggé di wax man géeree la ah man lam tora la dugg na fii génn fii mais lepp loy def da ngay làqatu ñemewoo genn di yónni say liet ay mambay ñaan di leen sacrifier di sacrifier ay Mamour Diallo di sacrifier ay Lat Diop ay Suzanne Camara mais yow doo génn mukk nga jàkkaarloog Sonko boo jigéen di def yëfu yëfu ragal Maty Trois Pommes nee na Sonko dafa dafa am benn déclic nee na le dafa am déclic ndax dañoo jàpp Sonko ah dañoo jàpp Sonko dara xewul ma ne ko Maty Trois Pommes waxoo dëgg déclic yow boo demee ba wax ne dafa am déclic ça veut dire que kon Sonko daf la njëkk woon yéen nga yor armée yor gendarmerie ah yor police ba paré nga ne dafa am déclic kon ça veut dire que depuis depuis le 8 mars ba léegi Sonko mooy seen baay mo len téré nelaw légui ngén am ben pour yéen loolu victoire la li ngén def Sonko ngén toj victoire vitre ah tere ko dem ñu euh, euh, mu tuddi pour ah loolu moy déclic kon ça veut dire que yow d'accord, accord Sonko mo sen baay mais loolu rek c' un aveu d'échec parce que vous en tant qu'institution institution vous êtes le président de la république n'est-ce pas Mais vous avez quelqu'un qui vous empêche de dormir. Et il vous faut l'enlever, il vous faut casser sa vitre pour avoir une petite victoire psychologique. Victoire psychologique, bobu ñu am mom lay ndamo di wax légui sonko. Mais Macky Sall nous motax jour le 16 février lutax jappul sonko man loolu là bëgg xam lan moo tax Sonko gis nga nit

dafa am lu ñuy wax l'instinct grégaire l'instinct de troupe dafa am aussi lu ñuy wax la la révolte dafa am aussi lu ñuy wax l'injustice qui est l'étincelle qui va mettre le feu au poudre gis nga nit ñi dañuy xaar ba mu am benn affaire boo xam ne nag moo naan nag ah ça c'est la goutte d'eau qui fait déborder euh, euh, euh, déborder le vase wala ñu ne ah ça c'est l'étincelle qui met le feu au poudre dañuy xaar ba ñu def benn injustice bu boobaa nit ñi dañuy dof nit ñi li leen di génn sax duñ ko xam mais du question ni Sonko moo naan gars yi ñëw leen gars yi génn révolution du def du demee noonu une révolution n'est jamais programmée une révolution c'est l'effet de surprise la révolution c'est instantané c'est spontané c'est pas quelque chose qu'on programme si vous programmez quelque chose vous pouvez euh, euh, euh appeler ça une insurrection ou bien un coup d'état ou bien une rébellion mais

baax mom mo danel avion président bi té mom dañ ko won pour jubóo ah Kagame ci all bi la nekkoon di xeex comme comme wa Casamance ak MSDC ci àll Congo bi la nekkoon du xeex gars yi ne kaa ñu djubo ñu woo leen ñu dugg ci dëkk bi la première chose bi ñu def moy avion président bi ñu daaneel mais lolu est-ce que radio Mille Collines moo wax gars yi génn dédé déedéet radio rajo Mille Collines de rek de ba ñu gars yi ba ñu yëgee ne rey nañu sen président ci la nag tutsi utu yi nag mer commencé génn di taal di rek loolu kenn justifié wu kenn justifié ko parce que rey nañ fa huit cent mille personnes Sénégal Maty Trois Pommes juum nga juum nga ra cooki fin bi mën na bañ a nekk le seize mën na bañ a nekk le quinze xam nga cooki fin kañ lay am xam nga cooki fin kañ lay am mooy Macky Sall na dëggal boppam mu génn mu ne damay def troisième mandat par force na ko def sama chiffre baa ngoo 44 gars yi gën leen laaj na génn Sénégalais yi ñun yàkkamti wuñu

yalla ay misaal lay def juge juge ba juge bi le juge, Samba euh, juge Samba Sall gis nga affaire Beauté le xat le xaju fi juge Samba Sall mo juge, affaire suite Beauté ñepp ne ko Beauté juge, le ne ko stressé di laqatu gis nga le juge, le na pression bi mu le ba muy sax ñom le xëy benn jour dee ba mu deewee kenn ñemewul jël dossier bi Mamadou Seck jantal juge bi ma doon tuddee jantal juge temps yoy. dañ ne dossier baa ngi nii mu ne dossier bii du ma ko laal kenn ñemewu ko pendant presque 8 mois kenn ñemewul laal dossier il a fallu Macky Sall ak kii li ñu wax ne Farba Ngom ñoom ñoo dem ñu convaincre Sen Benen mbokk nedd ko bandu muy le juge euh, Maham Diallo ne ko jëlal dossier bi juge Maham Diallo gis nga ba mu dossier bi comprendre nga après li ci am gis ngeen ko ba mu ba décision bi mu war jël Ousmane Sonko dakaa tek pression ba légui juge Maham Diallo kenn xamul fa la nek kenn xamul fa la nek parce que Sonko dakaa tek pression menacé ko lolo tax tamit il paraît yenen juge yi ñu laal ñu wara jël juge mooy juge euh, Amat lañ ko jox ak yeneen ñaari juge mais ba léegi xamuñu yeneen ñaari juge parce que amuñu ay nit yu ñeme atte dossier boobu moo tax ñu jël dossier Adji Sarr ñu tegee ko nele bëgg nag profité ci dossier Mame Mbaye Niang mooy seen denn mooy seen sànni tàccu am na ku ma laaj ana Mame Mbaye Niang mooy seen tànn sànni tàccu mooy dossier Mame Mbaye Niang mais Mame Mbaye Niang moom au moins loo ko waxal waxal waxal géré la Mame Mbaye Niang loo ko waxal waxal géré la parce que moom dafa ne moom bu Sonko bu gagné dañ may tej xam nga Sonko bu nekkee président déna, kon nak xaaral mom moom mom moom moy logique mam Mame Mbaye dafa ne Sonko bu nekkee président mom man dee té te sax logique bu baax ndax man lima ma gëm moy mam Mbaye Niang tey mën na négocier amna ay temps ñu né dëkk bi ba mu takké jëppeet dafa doon wër Sonko pour transhumer Karim Xurum khan loolu la wax ñu porte ko plainte mais Karim mo gañe Karim mo gañe mam Mbaye

mais Mame Mbaye Niang au la parce que moom nee na même Mamour Diallo sama xarit la booy xool booy xool mën nga ne sax moom it guerrier la ndax yow nga dugg ci benn complot boo xam ne yow leer na ne leer na ne affaire bi dafa kalaate mais nga ne garaawul man xam naa danger yi ma nekk Mamour jàll toog na ak Adji Sarr mu ne Adji Sarr nañu sant yàlla munoon nañ ñu rey Mamour Diallo xam na danger yi mu nekk de xam na danger bi mu nekk danger de mort tous les apéristes là ils savent qu'ils sont en danger de mort Mais c'est une idée. dee lan moo malaise malaise là mon koy indi man du ma yàlla du ma yonent te bëgguma wax lu ñaaw ci tu xam dafa génn àdduna mais man bu may analyse une analyse froide il y a pas de compromis Nous on essaie de sauver le Sénégal lan moo ko malaise malaise là mon koy indi stress surmenage liggéey bu parce que avocat nga nek ci kaw mambe Mbaye di wote sax jour Macky Sall li lañ wara def mambe Mbaye li lañ wara def stress bi ah peuple bi ah dekk bi nar na tak de ah corog japp liñ Sonko mais lo da nga yakane ne mak mak mak mag mën na dund mak mën na gis muy toj vitre Sonko ñu ñu yaakaar ne mënoon nañ rey Sonko wala dañ japp jour bob xeyna na dañ waron japp Sonko te Sonko saa buñ ko jappé Sénégal jëppet lay def <laughs> loolu mom comme ni ko Californie di waxe amul ñaari salaamaaleykum Sonko buñ ko jappé jëppee ci sasi biñona moy ñëk tak ñun ñun encouragé wuñu rébellion mais ñun dañuy artu parce que ñun ñoo ñun Macky Sall momu Sénégal ëppale wuñu Sénégal kon nak malaise bobu ñuy wax mais est-ce que du crise cardiaque est-ce que du stress moko ray rey mën na am aussi dafa feebaroon parce que mak la tamit mais ñun possibilité yëpp la ñuy wax mais fi mu nekk ni malaise u malaise malaise maître sey rek ngeen xam waa APR kenn nelawatul ci ruku nelawatul gis nga Farba Ngom il ne dort pas ci stress lu ñuy dund parce que xamuñu dañuy toog di xëccoo dañuy toog Macky Sall bu doon Macky Sall rek moom Sonko tëj nañ ko wala rey nañ ko yàgg na parce que Macky dans son tempérament dans sa folie dans sa haine viscérale de Sonko il ne peut voir Sonko en en peinture. lui il pense qu'il peut éliminer son te dara du mais gars est tempéré. koy tempérer ñom met ñom général Moussa Fall ah, ak euh, euh, gars ñoo Antoine Diop ñoo naan ko mag defal tànk ki duñ ko nous ki duñ ko parce que buñ ko rayé ñun ñëpp Sénégal day Serigne aussi dinañ ko wo peut-être ko ah, def bul jàpp Sonko bul rey Sonko mais bu doon Macky kese bu doon Macky c'est dans son tempérament dans sa foule parce que li incompréhensible, comprendre man yàgg naa leen ko wax mais bugg leen ma gëm Macky Sall wérul il n'est pas sain d'esprit bu wax wérul du question dafa dof mais c'est-à-dire Macky Sall il vit dans son propre monde un monde parallèle fait de mégalomanie fait de de de narcissisme il pense qu'il est le Sénégal parce que l'État nous croyons ko yàq APR les vautours les faucons les ko Macky Sall il vit dans une bulle Macky Sall il est dans son dans dans dans son propre monde moom Macky fait de milliards xam de 4 4 avions présidentiels. xamul lu xew il a perdu le sens de la réalité depuis très longtemps Macky Sall ku mu mënoon

avec lui il n'y a pas de dialogue c'est ça le président Macky il n'y a pas de dialogue c'est un dictateur euh, euh, avec euh, les les les les les les cadres de APR APR musul am investiture APR quand il y a réunion nous numéro 2 amul numéro 2 amul discussion. amul dara Macky kenn du ko woo da koy woo ba sonn doo ko jot moom moo lay soxla woo la bu la woowee pale doo ko gëmee boo ñëwee toog may monsieur le président dañ koo ragal Macky Sall gis nañ ko du du ree du ree fu mu toog day fas kanam gars yi dañ ko ragal parce que dafa gaaw a dàqe te dafa soxor xam lu tax mu soxor dalay lay détruire il est impitoyable c'est un homme sans cœur incapable d'impact d'empathie moy amul yërmande lui il te il te fait mën na la defar comme il peut te détruire en en deux secondes parce que système bi mu yor moy c'est un système très efficace un système financier bo xamné ne gars yëpp lu ñu xam liñu am yëpp xam na li Amadou Ba am ci kër xam na compte banque bancaire Amadou Ba xamna compte te Sénégal dafa bëgg xaalis Sénégal dafa bëgg xaalis dafa am.

Anna Cissé Lo déggati ngeen ko mu wax kenn ngeen gis ci APR ku génn fipp songu Macky Sall kenn moo ko fi ñemoon benn benn mbokku alpulaar muy Moussa Diop parce que alpulaar la ko moom Moussa jóob rek moo fi génn mu tëkku Macky Sall parce que mbokku xalpulaar la te xëy na Macky ñemewul rey mbokku alpulaaram looloo tax te Moussa Diop fan la mujj delluwaat na est-ce a ngi est-ce que yéen a ngi comprendre fi fi fi yéen a fi may waxee. makki Sall nag moom moo wérul mais nag ñoom Mamour Diallo ak euh, Mbamme Niang ak ak Suzanne Camara bi ñuy def mooy ñoom dañuy xeex ki ne na police à déjà barricadé le président Sonko ñi ngi ay vrai dëmm lañu ah dañu barricadé Sonko gis nga gis nga gis nga euh, euh, ñoom Mamour Diallo erreur bi ñuy def mooy Macky Sall dafay làqatu seen ginnaaw di def li muy def mais Macky Sall Macky 3 pour dafa génn mu ne Sonko tàppet la mais tàppet bi mooy Macky Macky ci boppam mooy tàppet parce que yow deux ans Sonko di génn di def lu ko neex même Siré Ba mu ko koy Siré si mu ngi ko doon def na benn analyse bu mel noonu Sonko day génn benn booy rek moo ko tëj muy Sonko ñemewoo ko jàpp ñemewoo ko rey ñemewoo ko tëj ñemewoo dëggal sa bopp te yow lii la dese bëriwul léegi Macky nag bu dee guerrier la na dëggal boppam bu dul guerrier bu dul géer te ñun loolu la ñuy ñaan sax mu bañ a nekk géer yi mu yeewu na dellu ginnaaw mu jël ay milliards mu dem bu ko deful jaajëf day jóg gis nga bu jëlul ay milliards mu dem billaahi wallaahi wa xeex bi Macky Sall mënu ko gañe gañe du rey Sonko rey mille Sénégalais loolu du def loolu gañe loolu defet la parce que dootoo am jàmm ba ba ngay dee lu waa APR kenn nelawatu ci ana ah, Abdou Mbow kan ma ko gënoon rëy làmme déggati ngeen Abdou Mbow mu génn di wax dara ana Yakham Mbaye kan ma ko gënoon rëy làmme te ñoom ñëpp dañoo daw parce que Sonko da leen menacé ñoom ñëpp même ma trop mu ngi koy wax nee na Sonko laa ilaate malin mooy dafa menacé gars yi ñëpp a daw te ñoom ñoo yey daw parce que gis nga li amoon trois le le le huit mars. lu ko raw mën na am Sénégal parce que Macky Sall xam li mu xam mooy ne jeunesse bi xamu leen lan mooy désarroi xamu leen lan mooy misère xamu leen lan mooy nga toog war a am gel am gel nga toog war am jabar munoo am jabar nga toog gis sa yaay war togg añ munoo togg añ nga toog. bëgg sax yëre yu yëre yu set sax mënoo ko am mënoo ko sol te nga nga am 25 ans 30 ans nga toog <laughs> c'est-à-dire Macky Sall ak waa APR lii ak ñoom Macky trois pommes li am Sénégal la ñu xamul dañ ko sous-estimer ñoom dañoo sous-estimer la pauvreté le désarroi le manque d'avenir sonn bi xooslu bi ak maar gis nga nit da ngay toog ba des fois sa xol yow da ngay maar gis nga tëj yu bëri yi ñuy jàpp nit ñi di leen tëj di toroxal nit ñi yoonu Sénégal Dakar yëpp ñu fatt ko jàpp Ousmane Sonko di ko toroxal li ñu ko def nii le 16 février pour yéen loolu victoire la ci yéen loolu dafa dafa feesal xol yi gars yi dañoo mer a mer boo bëggee xam sénégalais nu mu meree demal ci live sa Kayz Fof live Kayz Fof bu tijjee ligne bi Kayz Fof bu tijjee ligne bi nga dégg jigéen ñi ni ñuy waxee nga dégg sénégalais yi ni ñuy waxee da nga xam ne ñii dañoo mere Macky Sall te ñooñu diaspora la nekk bon bon ñu ngi fayee ay millions li may wax ni c'est difficile à expliquer foog nga dund ko gis nga ñak ñak il faut nga dund ko il faut nga dund ñak pour xam lan la boy yi nekk Sénégal mais ñun ñi nekk fi sax dañoo ñàkk dañuy ñak des fois ñun ñu nekk Amérique fi nga xam ne mooy Eldorado ñu ñuy fay ay millions 2020 ci Covid bi. kenn liggéeyatul man ci laay doog xam nekkati nit mën na toog du lekk nit mën na toog du am fu mu tëdd man cest à man man man moo su ma leen mag Macky xamul li xew dof dafa dafa wéru mooy réalité xamul réalité man xaw moo ne man xaw moo ne nit dina mën na toog du du du lekk dama ko daan dégg rek comme nit toog toog boo añ parce que man. ñi ma nekk Sénégal yëpp sama papa sama sama papa macha allah mosuñu am problème Dakar kenn mosuñu coupé courant mosuñu man xaw ma man suma xam lan mooy nga toog ñu coupé le courant parce que sama papa macha allah liggéey na sama yaay da daan dem Makk di ñëw def commerce vingt cinq vingt cinq fois dem na ko Makk xam nga suñu koñ macha allah mais am na kër yoo xam ne dañuy toog jékki-jékki courant bi coupé ñu coupé leen coupé leen ndox war leen génne duñu fay man xaw ma woon ne genre misère yooyu am na. Macky Sall dafa sous-estimé Boy, dañoo maar gis nga boy Mbacké yi loolu misaal la nga boy bu parce que sénégalais mën na muñ war a lekk lekku na muñ am gel amul gel waaye yaakaar am ci nga bëgg ko sénégalais du ko nangu ils sont en danger de mort maître say dem na kan ci maître sëy malaise ko rey ñeneen yi bu ñu deful attention stress bi mën na leen jox crise cardiaque ñoom ñëpp ñuy dee benn par benn bu loolu doyul bu ñu jàppee Sonko wala ñu rey Sonko wala Macky Sall ne day def troisième mandat booy génn ñu commencé wax tiire bu boobaa bu boobaa nag ci la ñuy xam Macky Sall ne lu fi amoon dootu fi amal ñoom ils sont en danger te Macky Sall comme ni ma ko waxee mënul gagner parce yow constitution bi ñaar la la may ñaar sa ñaar jeexna pour nga tok il faut nga ray ay nit lolu lolu moy gañe dama len di laaj yow pour nga toog Macky Sall mënul may may limi def day nax boppam mom day nax da bokk bu yakkar ñun dañ koy baye mu bokk ci election mais day nax di jël ay amadou Diouf di tek fi <laughs> amadou Diouf mo dara acte suñu election ko xamne affaire Adji Sarr affaire Mame Mbaye Niang nañ ci wax Mame Mbaye Niang moog Sonko la Sonko nee na jël vingt neuf milliards nga ne jëlloo vingt neuf milliards mais na fa mais Amadou Diouf moo ñëw mu ne kii dafa def usage de faux xaw ma lan ak lan yokk ci yeneen affaire comme sax ñu mën a tere Sonko du bokk procureur boobu moom la Macky Sall jël man Clédor laa dégg mu ko expliqué Clédor Sène procureur boobu moom lañ jël. léegi moo nar a joxe résultat élection yi koo xam ne dafa bañ Sonko te procureur boobu tamit bu ñu àttee Sonko ci mbay ñaa moom moo war a def appel bi moom moo war a war dëggalaat ne dëgg la est-ce que yéen may dégg Ali Siré Ba kooku dégg naa dañ ne woon waratul sax nekk avocat waratul sax nekk juge parce que dañ ko takkal ci ay affaire Sall bàyyi ay juge yoo xam ne ñu ngi woon cour suprême gën ko màcc xam-xam ko gën ko fa yàgg mu teggi leen noonu lépp mu jël Ali Siré Ba beneen noonu ner ba ko bandum teg fa jël séeréer teg fii jël tukulaat teg fii dafa yaakaar ne ñun li ñuy li muy def ñun gisuñu séeréer yi la bëgg jël léegi dangay toog sax dégg ñan la ay site site dañ ko dañ ko jël muy recruter xaw ma ndax dëgg la wala dëgg mais site bu dee loolu li ñu koy waxal dëgg la mi ngi xaru de bu dee baabooy bi may dégg turam dëgg la ñu ngi ñu ngi xaru de Amadou Sall lañ wax ne moom moy genn di leen jox ay 3 millions yu ma xam man bëgguma sax tuddu ay tour parce que bëgguma toon man gëmuma ne cité dox na dox bobu dox bo xamne dina ne mais mais mais c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays yow bëgguñu la nga ne da ngay force boppam man nak man waxuma man ken toñu Macky Sall toñu ñu de sëriñ yi moom bëgguma sax wax seen affaire waaw man sëriñ yi moom dama leen dépasser les xalif généraux la bëgguma wax seen affaire parce que ñom xalif généraux xam la mo leen dara dal Sénégal daal tàkk jëppee yàqu ñoom ñooy perte parce que dootuñu gis taalibe buy dem ay màggal Tuubaa wala nan day dañuy ñëw di jox ay addiya man waxuma sëñ man man waxuma sëriñ man xam nga ñan laay waxal ñoom Mati Trois Pommes Mati Trois Pommes yow am na nu muy demee dootoo dugg Sénégal jeexal ak Sénégal mu neexee Mati Trois Pommes Sénégal nu am na nu muy demee dootoo fa teg sa tànk te yow dangaa ngaa dof ndax yow jamonoy Macky sàlla ñemewoo dugg Sénégal Maty trois Pop parce que dañ laa jiiñ sàcc da ngaa sàcc xaw ma lan benn concert bu waroon am xaw ma xaw ma Dubaay la xaw ma am na daal benn événement ñu taqal la ci ay affaire billet d'avion nga toog ay at duggoo Sénégal Maty trois Pop bëgg dugg Sénégal jaral la nga jaay sa audience parce que adduna bi dara gënul neex nga nekk influenceur Maty trois Pop yow wéruloo muusuloo booy o yaa ngi bëgg dof yow tamit nga nekk influenceur eh, kii eh, eh, nu mu tuddati é ah comment il s'appelle kii nan la Adamo a na compte un million cinq cent you know gars yi nag waaw amoon na un million cinq cent d'abonnés abonné Adamo oh, ci TikTok mais di saaga Sonko di xas Sonko patriote yi ko ñu ñu tëj compte ba loolu du loolu est-ce que ku muus dina ko def Maty yow nga demoon ba nekk influenceuse am sa audience mais bañ Sonko di di di di di ba léegi ñu bàyyi la man sax maa maa fi nekk de di wane say vidéo mais yow gars yi gars gaay gars yi gars yi weddi nañ la gars yi man gars yi bëgguñu may def live fii xaaral foog ma déplacé wu dem ci beneen côté foog ma déplacé dem ci beneen côté. waaw pour gars yi bu may def laay bu am ñu sonal mais il faut may def live parce que parce que ñun Sénégal rek lañu am tam amuñu kenn waaw xam nga may la ma tuuti ma def live waa ji daf ma solo bu ñëwee moo tax bu ñëwee il faut may saaral mel ne kuy wax ak sama jabar ak yooyu est-ce que na may dégg mais ma trop mooy musul musul parce que yow Sonko bu jëlee président fii nag la ñuy nekk après génn wéy maa ngi excusé wu ah, vraiment ñun dañoo juum Sénégal rek la am li ma waxoon ci Sonko yëpp maa ngi koy regretté Mati Touré foofu lay mujj de billahi Gabriel Kane fa lay mujj de ñoom ñi ngay gis fi yëpp ñuy nekk fi di sóob di tëb dal dinañu génn ñoom ñëpp après di baalu di wax mooy vraiment ñun Sénégal la am Macky Sall nag wax dëgg comme nii la demee ah comme yow peuple bi bëgg la. vraiment xëy na mag bi da a nangu rek nga nga nga abar réew mi mais bu boobaa c'est trop tard parce que mag trois pommes li muy def nii c'est dangereux mi ngi encouragé booy pour booy génn euh, jàmbaarloo ak Sonko nee na nag cooki fin mag trois pommes nee na Macky Sall defal li ngay def nga jàpp Sonko maître El Hadj Diouf beneen séeréer bu Macky Sall bëgg utiliser nee na Macky Sall tapet la euh, euh, maître El na Macky Sall tapet la moom moo war def forcing pour tëj Sonko comme ñoom li ñu bëgg li ñu bëgg mooy le 16 Macky tëj Sonko te nag gars yi man yaakaar naa ne ki dina def loolu bu ñu seetaanee ki dina def loolu kon kon kon li ñu war a def mooy suba ñëpp war a dem fa fële mu mat cinq cent mille un million de personnes la ñu bu ñu ñëwee nag Sonko na ci profité mu wax booy yi mu wax booy yi bu leen tas sama yaakaar yéen yéen a yéen yéen a wax bugg leen ba trahir leen mais yéen tamit bu leen ma rusloo ba Macky trois points mag ñoom Macky Sall ak ñoom Mame Niang naan man dama woote kenn ñëwul Sonko loolu la war a wax ak jeunesse wax dafa jot mu ne leen yéen nee ngeen bugg leen ma tas seen seen yaakaar mais yéen tamit bu leen tas sama yaakaar bu ma leen ne génn leen la quatorze ak la quinze def leen seen manifestation jox naa leen ndigal jox naa leen ndigal def leen seen manifestation mais Sonko même bu booy génnul moom na dem rek le 16 man gëmuma le 15 dara dina am le 15 manifestation yi mën na bañ a bëri mais le 16 moom gëm naa ne booy ñu gunge ko par force Macky Sall nag moo waroon profité sur le fait que euh, euh, nu mu tëddati Macky Sall moo waroon profité sur le fait que euh, maître Seye gaañu na Mame Mbaye ñaan tamit ne ah comme man sama avocat dafa gaañu. maa ngi demander renvoi li yëpp ay yàlla mooy génne ay misaal yàlla mooy génne ay misaal comme juste Samba Sall ni mu dee tey métti say dee yàlla mooy wane ay misaal pour Macky Sall bañ a atte Sonko mais Macky Sall dafa dëgg ko léegi nag le 16 man laa ragal ne foofu la yëf yi di amee suba meeting bu rëy moo dara am parce que gisuma fenn fu ñu ko interdire ah bu dee dañ ko interdire wax leen suba moom gëm naa ne meeting bu rëy dina am Parcelles Assainies CAPES nit ñi dinañ genn xex du am dara du am ñu gis drapeau yi ku nekk wax mais sénégalais wax rek lañ mën ah genn fi wax way Macky Sall lii wax mais wax wax dafa jeex le 15 dina am peut-être Bignona boy dinañ genn manifester région parce que sénégalais xam nga lan moy problème bi wax genn nit ñi manifester leen kan moy man man tay buma nekkon nekkoon HLM nga ne ma manifester nan lay manifester.

ci la ñëw parce que dañ naan bu dee man kese la damay neex a jàpp te kenn bëggul dem saraxe boppam Macky Sall dafa soxor prison yi ñoom dañoo gaaw a tëj kenn bëggul saraxe boppam kon suba man la 15 gëmu ma ne dina dina am ay manifestations yu bëri peut-être ñoo na mais le 16 moom nit ñi dinañu génn par force parce que li daloon Sonko le 16 février dootu ko dara booy du ñu seetaan ñuy toj ay vitram di ko jàpp le 16 moom. booy dinañ génn mais man gëmuma sax ni Macky Sall pare na pour xeex ak ñun le 16 Macky Sall leen moo ko intéressé le 16 lii am ci biir tribunal bi moo ko intéressé Sonko dugg mu profito profito condamné nañu parce que fi mu nekk wax nañ juge bi li mu war a def juge bi li mu war a def wax nañ nee na ko fi nekk di dof fi ñëwee di ay dama am cinq avocats yu bu leen déglu wax leen rek eh, quinze minutes laa leen may boo leen dof dof loo man damay jël sama décision léegi ah, léegi laay jël sama décision

dinaa ko atte léegi nag toog dem nag Sonko dem ñu toog deux mois trois mois ba xool fi leen arrangé ñu ne juge bi atte na nee nañ Sonko condamné nañ ko kon du bokk Macky noonu lay fonctionné day pat benn daf ñoo jàppe comme ay xale Macky Sall daf ñoo yàpp billaahi dafa yàpp Sénégal yi Sonko nag nee na ko di daal Samuel doo moo la ndara dal xam nga la moo daloon Samuel Doe dañ koo rey

gars yi ngeen baal ma Gambie yi mais c' est pas un dictateur comme ay Mobutu dof yooyu sanguinaire yooyu Macky Sall c' est pas un sanguinaire c' est vrai am na ñaari nit yu ci dee muy Mankabou ak euh, Fulbert Sambou ak euh, euh, Didier Badji ñett mais Macky Sall du sanguinaire moom tëjaate lay def nangu sa xaalis moo tax mu boo gisee mu jël amadi Diouf teg ko pour muy atte élection jël Siraba teg ko pour pour muy atte élection moom. xam na ne mënul xeex Macky Sall xam na ne bëggul xeex xam na ne mënul gañe xeex militairement day sóob Macky Sall day sóob billahi wallahi taala Macky Sall day sóob bu duloon sóob jàpp na Sonko yàgg na comme leen Mollah Morgun di wax da koy takk yóbbu bu kii Macky xam na ne bu naan pirip billahi wallahi taalahi bu naan pirip booy dañuy génn te bi pa booy Mermoz la ñuy dem damuñu pale de parce que xam nañ ne Macky Sall nekkul pale bëggul xeex te du xeex lenn la bëgg di ndaxanteeg nit ba tëj Sonko mais xeex moom du ko def jàpp Sonko du ko def tiire Sonko du ko def rey Sonko du ko def Sonko buñ ko reyee maa ngi day taali accident lay doon benn dof mooy jékki-jékki rek ko bal wala jiw mais Macky Sall Sénégal yi ko wër ñoom Moussa Fall ñoom ñoom ñoom Mamour ñoom ñoom euh, euh, Antoine Diome du ñu ànd jamais ak armée bi. dèjà ñu ngi naan armée bi dafa divisé am na 30 officiers xaw ma yu yu yu def réunion loolu Adama Gaye moo ko moo ko joxe journaliste armée bi ñoo dul seetaan Macky Sall du ñu ànd ci ne day kaay rey Sonko loolu amul benn Sénégal bu ciy ànd loolu amul parce que dañ naan ko ñun boo bëggee xaru yow nga dem xaru mais ñun doo ñu yóbbaale parce que Sonko waa APR il faut ñu xam si dara seen bopp man maa ngi leen di wax ay weer moo leen de see dund xam wax naa ko fi maître Seye dem na. ah man maa leen ko wax man Mister Shake billahi wallahi taala waxuma Macky Sall de waa APR laa leen wax boo leen taalee réew mi ay weer moo leen dese dund même ñun ñii ñëpp wax naa ko fi maître Seye dem na nañu dem fii 2024 11 mois moo ci des te élection yi kenn ko puus ay weer moo leen dese dund gis nga wax gis nga nit booy artu da ngay def comme buuba nduur da leen di wax dëgg parce que ñoom danger bi ñu nekk xam nañ ko mais am na ci ñoo xam ne xëy na xamuñu ko ay weer ñoo leen def si dund stress rek mën na leen rey ay malaise ngeen di am boo leen deewul ci ci di tëdd mais la moo fi jaar di tëdd di gént di yuuxu di am ay cauchemar ñoom ñëpp dañuy tëdd di gént ñoom ñëpp fi mu nekk ay garde ñoo leen wër <laughs> lu ko fi jaar par ngoom boo demee këram xam naa ne ay ay bip waa bip aji saar waa bip ñoo koy ñoo koy garde Amadou Ba dañ koy garder Macky Sall dañ koy garder lu ko fi jar ay weer moo leen di si dund loolu il faut ñu dugal ko seen bopp même ñun ñii di wax tamit garaawul ñun xam nañ ay weer moo ñu ko si dund parce que Sénégal moom bu tàkkee moom dee nañu ñun ñëppay dee mais partout moo gën atte il faut ñu dugal ko seen bopp amul noppi naa de ay yaaxa mbay yii kenn waxatuma de ay ay Abdou Mbow Kiriko kenn déggatuma attaqué ku attaqué wu ma kon léegi man bokkatuma ci déedéet képp kuy APR képp ku am carte membre APR te ñu xam la nga yàgg wax di sonal Sonko boo leen bëggee mën nañ leen lim ñoom ñëpp ñoom ñëpp nañ leen lim wax leen ne gars yi bu yóbboo ngeen def comme waa jooju Ousmane Noël Dieng kooku moom dara du ko daal parce que dafa génn mu ne man du ma saaga Sonko du ma attaqué Sonko Sonko def ma dara. su may ay affaire tribunal yi man du ko jéem a du ma jéem a éliminer Sonko ci ay affaire tribunal te APR la bokk député la c' est le plus jeune député kooku tey bu dëkk bi tàkk jëppee kenn du ko laal parce que deful dara ko bu dara dara Sonko dañ naan moom yoonam nekku ci Ahmed Aïdara génn di ko xas naan ko tappat nga da bañ bayu Pastef yi di la saag même ñoom ay Aïdara yi du waa APR rek ñoo nekk en danger même waa yow askan bi képp ku ci nekk traître

ak Fou Malade ñuy wax lu leen neex di avertir Macky Sall Youssou Ndour am na fulla boobu am na fulla boo xam ne bu heure jot waxee Macky Sall doo taal doo doo ñu rey Sonko moom kenn du ko fa rey képp ku ànd pour ñu rey Sonko kooku wérul ay Suzanne Camara yi di wax nañu rey Sonko daf ci am ay ñoo xam ne ay sanguinaire la ay dof la ñu ñoo jaru ñoo déglu mais gars yi waa APR yi laa wax cité leen ma waa APR yi ñu ñu ñu wax leen ñu wax ak seen waa ji ne ko loo mënti def bu la neexee nga ne da koy tëj da koy condamné bu la nga jël Amadou Diouf Macky lool loo tax mu jël Amadou juuf teg fa ci Macky Sall ci élection yi la bëgg jaar mais yow balaa nga ne naam day fekk yaa nga fa nii Macky Sall ku ko bàyyi mu ne day bokk mais vraiment gars yi tamit mais mais mais mais ñun lan la ñu def yàlla senegal lan la ñu def yàlla ba am président boo xam ne ñun defuñu ko dara. Marème Faye Sall defuñu ko dara ñun on était fiers d'avoir une première dame africaine de façon teranga bu ne ñu joxal leen ko jox leen caisse noire bàyyi leen ngeen di cax caxatee dëkk jaay dëkk jaay hôpital yi jënd avion bu leen neexee jënd seen bateau seen doom yi am ay immeuble loolu yëpp ñu baal leen mais yéen yemu leen ci loolu ngeen jàpp ñu di ñu tëj liberté mooy nit nit boo demee yow mënatoo sax dox man maa ngi nii ndeysaan billahi wallahi taala su ma mënoon su euh, Sénégal. su ma fa demee sama xel du la parce que damaa contre Macky Sall Sonko laa faral mais loolu est ce que yoon la est ce que yoon la te man américain là mais Macky Sall faalewul américain man bu ma jàppee rey ma wala ñu tëj ma dañuy am problème mais nous dañoo soxor soxor soxor ba bo leen defee dara il faut que ñu fayu il faut que ñu toroxal la même buñ ma jappul mën nañ ma boole kenn benn nerf yi ñu ñu ñu attaqué ma wala ñu mais loolu nak bo démé yow ba sa dëkk mënoon amatoo sax liberté dugg fa am animal jim dugg ñu nit dof wax ñu jàpp ku wax lan qu'est-ce qu'on lui a fait lan lañ ko def ba mu jàpp ñu ah fu mu toog di nous, di de di di comme Cheikh ko da ngay man parce que yàlla rek mooy moo xam kuy ku Cheikh dafa taala 2024 Macky Sall day wàcc man nag li ma wax mooy billaahi wallaahi wa taalaahi Macky Sall jeexal nga waaw mais nag yàlla moo xam kañ ngay jeexal nga kañ fiy jóge ñii di ma wax ay ah maître Sele Ndiaye xaw ma lan mooy ndara jël coup d'état ma ne la yéen yéen yéen nag yéen nag xamu leen Macky Sall yéen nag Macky Sall day day day dem jël pouvoir ko jox ah benn benn benn général Macky Sall bëggul dem yéen xamu leen nit. Macky dafa jàpp ne moom moom moom Sénégal yéen xamu leen nit ay Maysa Sene Ndiaye yi ngeen wax yi mais Macky ñooñu bëgguñu sax jël Sénégalais melul noonu ay Maysa Sene Ndiaye kan moo leen wax da ngay ñëw nga nekk dictateur xëy na Moussa Fall peut moom la ñu wax ne am na tempérament boobu mais ay Maysa Sene Ndiaye ñu on a une armée républicaine ñun ay intellectuels la ñu am de ay ay général Tine yi mu jël yóbbu leen ay ay tur ay kii ñun Sénégal dafa am ay intellectuels bu doon coup d'état mais benn benn caporal jël na ko yàgg na mais yéen xamu leen armée bi Sénégal dina nangu Macky Sall di ko sacrifier xanaa dara Macky Sall du xeex le 16 dara du man li dama xamul droit xaw ma droit xaw ma ci juge bi day forcé ne day atte par force man loolu laay ragal mais loolu bu amee Sonko buy génn di ñibbi sax bii paa mag du ko jàpp mën na ko encadré nag mën nañ ko encadré pour yóbbu pour fexe rek mu ñibbi parce que mag <laughs> lan lay ragal xam nga lan lay ragal bu Sonko génnee tribunal xale yi génn ne dañuy dem pale

sen xol ak sen et ak mere te Maître Trois Pommes question dafa dafa dafa dafa dafa dafa euh Sonko de Maître Trois Pommes xam la moko metti liko patriote yi def yàq ko wallaay ba mais paré ñu dem fi muy liggéeyee dénoncé ko dàqalu ko ñu dàq xol gi ko metti patriote la mere légui dafa gis patriote humilier son loolu plaisir Maître la Diouf lenn metti dof c'était l'avocat du peuple Je dafa a ne président de la république Sonko a jël place Maître El Moi la dans sa folie dans sa mégalomanie dans sa dans son narcissisme à l'extrême moi moi moi moom it looloo ko dal dafa yaakaaroon ne après Sonko nee na après Sonko man maay gën a suu Sénégal maa gën a sonn Sénégal moom it Sonko dafa ñëw daal di ko effacé Sénégal dafa bëri ay dof de Mati moom dof Mati moom yëfu jigéen <laughs> man Mati man trop yàlla xam na ne man man man man bu Sonko jëloon président Mati Mati trop pour man duñ ko war def ko def dara parce que man xam naa me soxorul <laughs> Mati jigéen la Mati trop di sax ma koy seetaan di def ay vidéo ci moom moom soxorul de bonul de mais cest à jigéen Sénégal la bu pànk buy defante mais Maty Trois moom bonul de te bu leen fàttali ne liggéeyal nañu quand mais li ko patriote yi def moo ko metti muy mais li muy wax yëpp gëmu ci dara bëggoon dem Sénégal rek ak peut-être soxla tuuti weccit xam nga mais kii di mola dafa dof Maître Diouf moo gën a dof Sénégal dina ma man xam naa ne dina ma saaga man na mës sama ma tontu man nga xam ne maay Mister amul kenn ku ma mës tontu man Assane Diouf temps yi muy déconné dama naan daal ci kawam Mollah gën kenn moo ko gën a dof mais maa ngi def ay vidéo ci moom mais gisu leen ba léegi mu génn wax ma dara Maître El Hadj Diouf il ma génne benn vidéo ci moom mu génn di ma tontu di ma xas naan xoolal dof boobu naan lii ak lii Maître El Hadj Diouf wérul mook Macky Sall ñoo yem dans la même catégorie jël seen bopp teg suñu.

waaw moom jàng na euh, intellectuel la avocat la mais dafa faale laaj dafa faale euh, Adji faalewul Adji Sarr il est elle est Gabriel Kane Gabriel Kane nee boo leen weddee ne Adji dafa dof laaj leen maître Diouf waaw gars man sama laaj bi baax na ma tàppe maa a liggéey nag di wax rek waaw non dese dese na ma tuuti sax Gabriel Kane nee boo leen bëggee xam ndax maître la Diouf ndax euh, Adji Sarr dafa dof laaj leen maître El Hadj Diouf laaj leen euh, beneen avocat bi nu mu tudd beneen avocat euh, Adji Sarr bi maître Diali kan xaw ma mais surtout surtout laaj leen ñiy garder Adji Adji Sarr c'est-à-dire yéen bu nit di wax doo leen ko dégg Gabriel Kane nee na mais mais Adji Sarr dof na elle est folle looloo tax mu ne bu buñ ko yóbboo. procès dañ ko sacrifier gars yi nag non non non non oui c'est-à-dire non daf a dox suñu maañ non c'est-à-dire bugguñu euh, Adji Sarr euh, bokk ci procès bi moo tax muy jë mais Kabri Kane li mu wax moo am xale vingt ans vingt deux ans nga tëj ko deux ans bu teyee mu tëb miir ñii di ko violé Adji Sarr da nga yaakaar dafa xëy rek tëb miir Mamu Jalo sama onami. ami ka tudé do. doom c'est-à-dire gars yi yéen man Mister Shake damaa garaaw de bugg bugguma ma ne ma euh moo laa moo gën mo moi moi moi mais man saa <laughs> yi man dama mëna analyser té dama am jot xam nga man jot bi ma am yeen amul xam moo la mo gën kenn seetaanatu ko man sa yuy def vidéo damay top une heure de temps man awma ma temps de mais damay déglu moo la. gis nga Gabriel kan dama koy déglu gisoma té trois pommes bi ma tégal lé ñi nga xam ne kenn déglatu leen man sama information foofu laa koy dem damay dem seen laa di déglu di déglu yu ñuy wax damaa garaaw Gabriel Kane billahi wallahi taala li mu wax ci Adji Sarr ak Mollah Morgan Mollah Morgan lan la waxoon ci Adji Sarr ba muy tëb miir Mollah dafa garaaw dafa dof mais dans sa folie dafa garaaw Mamour Diallo sama xarit la ñëw ma fi pour weeje ko dama kaa tuddee doom ñoo bokkoon classe may jël premier muy jël deuxième ñoo amoonoo bac ma dem seeti ko Louga mu invité ma man ñëw na Dakar seet si ma dem naa bureau am toog ak moom nekk conseiller am ne ko bàyyil Macky Sall 2019 mu bañ kon iñaanewu ma ko koo dem ba tuddee doom iñaanewu ko waaye man maa njaago Sonko nag <laughs> Mamadou lu mu nekk sama xarit xarit man maa njaago Sonko te man Sénégal du ma seetaan mu yàq lan la Mollah moo doon wax ci Mamour Diallo Adji la moo tax mu tëb nee na Mamour dafa ñëw ne Adji Sarr damay dafay bëgg tëdd ak Adji Sarr ne ko damaa am samay règle dafa gis ay règle Mamour Diallo ne comme mënul sëy ak Adji Sarr ci dafa am ay la mais comme yaramam dafa tàng jour boobu mu sëy ak Adji Sarr ginnaaw Mollah dafa garaaw dof la nag moom wax na ko de nee na nee euh, kër sëriñ boo dem dafa am benn dof bu fa nekk mooy naan dox bu xam petit béeg mooy yu man maay dof man dafa am dox dox dof xam nga wax naa leen moo laa dafa am dox dof génn confirmé moo laa nag nee ci la nag forcé Adji Sarr daal di ko sëye ginnaaw Adji gën <laughs> il est kayus foofu moo la Morgan bi <laughs> information kayus foofu rek <laughs> mais kayus moom dofu kayus c'est un stratège moom bu lay jox ay nouvelle da nga naan waa mi kayus moom information yi muy wax ni fan la ko jëlee <laughs> mais kayus moo lay jox ay information Macky Sall dafa bëgg rey Sonko réunion nañ dem ba Macky Sall def na lii ay wax yu garaaw Marième Faye Sall dafa dof RG bi wax ne ma lii wala parce que moom mais moolaa Mollah moo gën a garaaw kay sof bu dee sos <laughs> man maa ngi jooy sax j'en ai les larmes aux yeux <laughs> Mollah <laughs> waruñu koon perte nag dafa def erreur waruñu woon trahir mais Mollah li mu wax nee na Adji te bu koy wax day wax d'une voix calme mu ne Mamour Diallo moo ñëw après mu tëbu Adji Sarr accident comme Adji Sarr dafa gis règle bulu sëy ak moom ci awra normal mu jaar ci ci beneen awra bi Adji yuuxu man nag looloo ma gën a marqué gars est-ce que yéen a ngi imaginer seen boobu mu mu mu mu tëboo ko ginnaaw Adji Sarr yuuxu yuuxu yooyu Adji Sarr doon yuuxu moo tax ak liñ ko daan def nee na nag Mamour Diallo moom moo njëkk non dafa dafa entre Mamour Diallo ak Bougane ñoom ñaar am ñoom ñoo njëkk tëdd ak Adji Sarr yi yëg ko nag ne ah ok waa APR yëg ko ne ah kon Adji Sarr ah kon xale bu baax la ci la gars yi nag commencé tem di Adji Sarr toog ci boppam mu ne tëdd naa ak ñoom ñëpp Adji Sarr ko wax man instant yi waxuma ndax dëggal wala dëgg mais dama bëgg ngeen xam état d'esprit Adji Sarr Gabriel Kane bu leen waxee ne dafa dof war ngeen ko mën a gëm. war ngeen ko mën a gëm léegi ci la information bi circulé ne Adji Sarr mën nañ ko tëbbu ginnaaw mën nga tëdd ak moom si la ñuy wax ne Bougane jox na ko cinq cent mille patiti patita Adji Sarr daal di tëb mais lan moo tax Adji Sarr tëb moo laa moo gën tamit xam nga du ñëw rek jox ñu information mais nit ku tëb ba tànkam rëkk dama leen di laaj lan moo war a mën a tax Adji Sarr di tëb miir ba tànkam di wut ça veut dire elle eh, dafa dof mais gars yi c'est-à-dire Gabriel Kane buy wax ngeen yaakaar ne day day wax yow bu doon yow di nga tëb yow kan moo fiy tëb balcon sa tànk di rëq te amoo foo jëm yow xamoo sax foo jëm yoroo yoroo sax deux mille cinq cent il a fallu ba nga tëbee da nga dem ci rond point xaw ma Elton xaw ma fan nga woo Sidi Ahmed Mbaye si Sidi Ahmed Mbaye ne la defal euh, euh, euh, kii taxi payant xaw ma ni koy waxee taxi yi nga xam ne arrivé payante

ñooñu dañoo ñëw di tëdd ak Adji mais Adji Sarr dafa dof parce que ku dof rek mooy ñëw di wax ne Khalifa Niass dafa tëdd ak moom ku dof rek mooy ñëw di wax ne Bougane dafa tëdd ak moom ku dof loolu tax na gars yi daw ko gars yi boo gisee Adji Sarr gars yi ne dossier Adji Sarr dañ koy jël ñu tegee ko parce que dafa dem ba dof di dil di képp ku ko woo képp kuy ñëw pour pour jàppale ko Adji Sarr da

kër moo laa di tàkk waxum <laughs> waxuma ne Ahmed moo ko tàll mais pas boobu kan moo ko gën a garaaw Ahmed Khalifa Niass kan moo ko ñeme songu Sénégal ñi ngeen xam ne moo laa wérul bu ñuy wax la mafia politico maraboutique c'est-à-dire yéen <laughs> gars yi dama wax bay sama laar bay di génn yéen xamu leen mafia bi nekk Sénégal xamu leen Ahmed Khalifa Niass kan moo koy attaqué kooku nga xam ne depuis ci temps Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade di dem ay Libye di wàcc ay avion ñu naan dafa indi ay armes ak yooyu pas bu garaaw boobu Ahmed Khalifa Niass te sama nee na dafa am baatin en plus kan moo ko ñemee attaqué koo xam ne Sonko day dem sax di jéem a négocier ak moom di wax ak moom Sonko rek fi attaqué woon après ñoom ñaar ñu commencé waat jubóo mais gis nga léegi mu wax Sonko kankurak ah léegi kooku kan kan moo koy kan moo kan moo koy ñemee attaqué kan yu filmé yu filmé yee eh, gars yi nag il faut ma bouger waa ji noonu dafay ñëw chaque jour di ma laaj di ma wax euh, ak ak Adji Sarr dina ma dal di ma eh, da ngay def live bi waaw. xaaral ma xaaral ma def live parce que bii dinaa dañuy def euh, dañuy def benn benn euh, ay exercice fii si kanam est-ce que a may dégg waaw mais il faut ma il faut que ma il live yéen a may dégg oh oh may jël sama ndox. wax ba may la ma conclure am gën a conclure. Euh, léegi euh, kan moo ñeme attaqué Ahmed Khalifa Niass moo laa moo gën dafa attaqué Ahmed Khalifa Niass si suba si këram tàkk ñu naan ab euh, Macky Sall dugg na fii génn fii. xam nga te nee nañu am na ay taalibe euh, am na ay euh, ay nit daal ay taalibe ñeseen yu woo yaaye moo laa ma gën di ko di mais pour vous dire état d'esprit Adji Sarr kon bu ñu leen waxee ne Adji Sarr dafa dof gàddu Kane bu leen waxee ne Adji Sarr dafa dof dama bëgg ngeen gëm ko dama bëgg Gabriel Kane bu leen waxee bu leen wax xaar ma làqu ci fii ci tuuti waaye mënuma gis bu leen waxee ne Adji Sarr dafa dof dama bëgg ngeen gëm ko looloo tax Adji Sarr tëb miir daa di daw ba mu dawee ci la ko Mamour Diallo woowaat di ko wax ne yow da ngay tëb miir waroo tëb miir parce que ci baab ko baab ko baab ko baab ko nañu dee xam nga lan moo tax patati patata après ci li ñu wax naan taal leen climatiseur rek bu leen taal climatiseur rek fay lamp ak bu leen fay foofu lan moo ko am aj saar génn bëtu gaynde dugg na fii génn fii Mamour Diallo dafa bëgg càpp ci bëtu gaynde bi kenn ñemetul moo tax léegi kenn bëggutul wax ak aj saar aj saar génn def benn affaire bu extraordinaire Bijou Ngoné nga dugg ci live am Sen TV 2STV mais jour boobu mag xam naa ne Mamour Diallo bu mu déggee loolu tuuti ma crise génération TikTok nan la def bu dugg ci live Bijou Ngoné Kaliphone toog muy xas Maty trois pommes man faalewu ma leen boo leen ñëwee sama damay def procès bi ma ci la ñoom Maty trois pommes nag daal di nag kii nag dof la nag bàyyi nañ ko Françoise Hélène Guèye génn yàq ko lu ne xamee yow boo toogee di ma wax yaay yaay yaay ba pare naan ma damay dem procès ma ngeen ñëw ngeen ñàkk ñëw damay dem procès si la ko gars yi bàyyi waa APR tamit commencé ragal seize personnalités yi kenn ñemetul kii Adji Sarr ñu ñu ñu tegee ko nële Sonko génn terminus ñu xam ne nag fii nag Adji Sarr moom bombe la c'est elle nucléaire gars yi bàyyi ko ci la Adji Sarr dof papam nag ne xaaral ma yóbbu ko ci maayi ñaf pour ñu jéem a retiré plainte bi il faut ngeen di analyser Adji Sarr affaire am kenn doo kenn ko lépp ci Sonko la affaire bi lépp ci so ci ci Mame Mbaye Niang la Mame Mbaye Niang boo gisee moom tekki tekkaaral parce que am na lu ñuy pare boo gisee waxatul jël nañ seen décision ne lii la ñuy def tëj Sonko le 16 léegi nag yéen a war a fagaru ngeen génn ngeen bañ ko waaw mais Macky Sall moom bu leen nangu nañu nañu toog rek nañu toog te xam ne le temps joue contre lui le temps joue pour nous euh, du fi defee troisième mandat te yàgg-yàgg Macky Sall dina dina dellu ginnaaw waa APR ñoo war a wax ak moom bu ñu waxul ak moom ñoom ñooy perte parce que ñoom ñëpp Macky Sall da leen dara sacrifié voilà gars yi laaj bi loolu la woon di leen laaj ngeen laaj ngeen partagé euh, vive le président Sonko information yi dinañ ko suivre mais man. man man le 16 daal laa gën a tiit que dara buy am le 16 lay am euh, mais nag ñu ngi xool daal ñu ngi xool mais am na ñu yaakaar ne Macky Sall la du def dara Sonko waaw parce que bu ko defee moom boppam la ko def voilà merci gars yi merci ah ba beneen yàlla bu ma am problème nag euh, ndax fii war ma fi def laa ok bye.